am not illiterate, no, not even a little bit. Turn it up, I make the music that's big. Nothing, nothing, nothing, nothing like an idiot. Get it, get it, get it, get it. bienvenue dellu si nañ ci beneen numéro Tek Chi Brick tey ñi ngi fii biir géejawaay soo gisee début bi déjà décor bi di nga comprendre ni ñi ngi ci euh, un endroit très hip hop ñi ngi ji hip hop euh, ji hip hop une histoire euh, ci hip hop lu lu yaatu lu rëy lu innovant également dinañ ci discuter tout à ci biir waxtaan wi mais bu ma waxee ji hip hop forcément xelit nañ dem ci bataillon blindé xelit nañ dem ci Malal Fou Malade salaamaaleykum maaleykum salaam Kals. alors c'est un plaisir ñu jàkkaarloog yow encore une fois pour discuter un peu non seulement ci actualité bi nga am mais wax également ci ji hip hop euh, qui parle de Malal dinga wax un artiste très engagé au-delà de engagement bi nga am euh, un artiste qui fait beaucoup d'actualité ci hip hop bi ak ci lu bari euh, tey ñu am plaisir ñëw fii euh, ji hip hop fekk si la géejawaay damay tàmbale déjà pour te féliciter ci bërëb bu yànj bi nga xam ne dafa raar ñu am ko ci hip hop déjà quand je parle de ji hip hop wala ma wax bërëb bu mel nii tu penses à bu ñuy wax ji hip hop déjà daf may delloo tout le temps ci ci histoire ci histoire ni mu tàmbalee mais suñ surtout ci histoire u foyer bi en général parce que nous sommes dans le foyer de naan ñun bi ñuy tàmbalee rap nos premiers concerts fii lañ ko teniree ay trois 300 boobu ñu ngi koy def ci théâtre de verdure foyer bi mm-hmm. euh, di ko def ci salle salle soirée dansante bi di fi ñafe bu ñu amee ay bénéfices dem defi dem enregistrer benn maquette sa musique wala feneen ak feneen donc euh, lim ñuy rappeler bëri na parce que Euh, dama ciy profité pour delloo njukkal une association bi nga xamante ne moo juddoo naan moom moo tabax foyer bi foyer bi globalement may ko mairie de la ville donc euh, pour wax ni aussi Waxinaan dynamique associative daf fi yàgg am donc di jaajëfal suñu grand yi nga xamante ne ñoo démarré foyer naan bi may ko mais def ko don de la ville. ok après peut-être nag la ville ne suit pas ne fait correctement pas son travail ci yenn affaire yi gérer infrastructure. Mhm. moo tax ñun bi ñu ñëwee on s'est dit il faut qu'on crée une association bi ñu créé association directeur bi Omar Niass jox ñu fii benn espace fii dañu fekk mu nekk ay. mbalit tu te rappelles du premier image yi bi nga duggee fii c'était comment. yeah fii bi ñu fiy dugg mbalit moo fi nekkoon ay ma ay machine walukaay éparpillé un peu partout. y avait absolument rien fii. désordre. y avait absolument rien dara nekku fi woon mbalit ay affaire yu tasaaroo des fois nga ñëw fii dara amu fi woon quoi donc hmm. euh, ñun bi ñu ñëwee on s'est dit il faut que ñu def fi dara noonu la histoire bi tàmbalee. Hmm. donc euh, xam naa si kanam dinañ ci yaatal. Hmm. parce que l'histoire véritablement de Guédiawaye hip hop l'idée de créer une association. c' est venu du membre du group B1X mu ngi tudd Malick Sarr Sarenzo noonu la histoire bi yëpp démarré ay Pat Ghetto rejoindre Mauvais Esprit Euh, underground petit à petit muy yaatu quoi muy yaatu alors euh, Malal forcément suñuy wax hip hop euh, suñuy wax ji hip hop il faut que ñu mélanger ko en passe actualité l' de Bataillon Blindé génn na résistant il y a un moment mais juste après dañu gis benn Malal bu stable au Sénégal c' est à dire tout le temps tu es en dehors du du, du pays yaa ngi génn lu bëri di dem ñi ñëw lan mooy expliquer sa voyage yu bëri yooyu. yes xam nga déjà album ay étape la bi ñu génnee résistant. on a résistant tour def nañ dans les prisons def une tournée sénégalaise mhm. après il fallait aussi faire autre chose mhm. parce que bu ñu fàtte ni que bataillon blindé depuis 2003 mu ngi sur la scène mu ngi exister sur la scène mhm. loolu yombul constance boobu yombul donc euh, ñuy évoluer du évoluer ba yàlla def résistant génn et cetera et cetera donc après ñuy dem ay États-Unis di dem un peu dans la sous-région dem am am na lu ëpp nag ci samay voyage je le voyage avec le mouvement Y'en a donc euh, pour dem représenter Y'en a marre à Amsterdam récemment c'était quitte le pouvoir après je suis allé euh, je pars aux États-Unis parce que ji hip hop euh, laay demal États-Unis donc euh, yenn saa yi je pars pour ji hip hop parce que récemment maa ngi ni door a jóge États-Unis pour douze jours laa fa def dem bi ma fa dem c'était pour waxtaan ak waa Last Poets waxtaan aussi ak waa euh, What's Beat and Life donc ñooñu dañ fi war a ñëw en décembre donc c'est pour que l'histoire du hip hop américain soit racontée par les américains. donc danga demoon pour des rencontres yoo xam ne dafa jëm ci ji hip hop jëm également ci ci le groupe Bataillon Blindé en général. bon car di nga ci profito am ay relation pour le Bataillon Blindé mais ji hip hop. laa demaloon bi may dem pour ji hip hop c'était pour discuter finaliser parce que dañu am partenariat ak ambassade États-Unis mhm. ji hip hop moo am ak ñoom partenariat mhm. donc bi ma demee c'était pour finaliser benn contrat ak waa Last Poets ak waa Woods Beats and Life. dañu war a ñëw Sénégal dañu war a ñëw Sénégal en décembre pour le festival Guédiawaye Baye Rap la foire civico hip hop qui va se qui va se dérouler du 22 décembre au au 29 décembre. donc dinaa ñëwaat ci festival parce que y' a un truc euh, certainement boo xam ne c' prévu pour cette année mais spécialement wuute ak yeneen yi daan am. dinañ ci ñëw ci innovation yi bëgg naa tamit bala ñuy sori euh, qu' est ce qui fait sa casquette yu bëri yooyu ngay sol souvent da ngay dem pour yanamar a dem pour Bataillon Blindé da ngay dem pour ji hip hop da dem souvent sax pour Malal. personnellement euh, qu' est ce qui fait casquette yu bëri yooyu et comment faire pour différencier loolu yëpp. li ma nekk bataillon blindé moom ma def Fou Malade en 2003 moo ma permettre un peu partout de temps en temps may voyager pour Fou Malade ensuite may voyager pour bataillon blindé euh, je suis parti plusieurs fois avec bataillon blindé dans certains pays parce que avec le bataillon blindé instant bi nii ñu ngi def benn ñu ngi liggéey ci benn projet bi nga xamante ne Dakar la Paris euh, Dakar la euh, Cotonou étape bu Dakar bi passé na Cotonou passé na Bénin parce que ñu ngi woon Bénin le mois dernier euh, avec tout avec l'orchestre la la bande live du bataillon blindé ñu ngi dem Cameroun à partir du 2 novembre jusqu'au novembre bu ñu jógee Cameroun ñu ngi Marseille loolu yëpp bataillon blindé ak orchestre bi ñoom ñoo koy def loolu c'est dans le cadre je rappelle que bataillon blindé maintenant jouer en live band orchestre euh, loolu aussi c'est une on peut dire évolution la man su jumul juumul maa ngi ko gis pour la première fois ci benn concert bu ñu doon def à la prison de Rebeuss ah pour offrir aux prisons benn concert alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui a fait aujourd'hui mais évolution jóge ci live beat ak instru dem ci dem ci orchestre band. yeah parce que on a vu que ñoom Awadi ñu gis ñoom Daara ji. di jouer live non on a vu non il faut avoir de bons musiciens Daara ji fait du très bon live. Awadi mm. fait du très bon live. donc euh, kër gi am na seen concert yu ma seetaan en live aux États-Unis c'est du c'est bon live tout dépend. des musiciens yi ngay am Simon aussi Simon fait du très bon live donc il suffit que gars yi xam que les musiciens jouent exactement ce que tu veux qu'ils jouent loolu aussi il faut être exigeant donc je pense que loolu ñun ñu ngi ci dynamique boobu quoi et il y a eu des musiciens qui ont travaillé avec Daara par exemple bassiste bi mm -hmm. il a travaillé avec Daara J il a, il travaille aujourd'hui avec, avec nous le batteur qui a travaillé avec Awadi il travaille avec nous donc format boobu noonu Bataillon Blindé daf ko war a yóbbu États-Unis Mhm. au mois de janvier donc war a def Washington war a def. juste après le le festival New York donc cas après le festival donc casquette yooyu li tax ma koy sol c'est parce que en même temps euh, dafa am lien entre ce que je fais dans Bataillon Blindé et ce que je fais dans Y'en dafa am lien ce que j'ai appris dans Y'en pour mun ko indi ci biir ji hip hop donc. Euh, donc affaire yi c' est du pareil au même c' la même chose quoi donc euh, li may def fii laay def fële. ok donc euh, et que en fait fu si nekk dama si am une responsabilité. alors un constat par exemple ci casquette yooyu ngay sol tu étais promoteur wala tu es toujours promoteur de yenn album yi yi fi génnoon. Yukunkung depuis un moment on n'entend plus parler lan moo xew. yes parce que on préfère peut-être. moment bii nii ñu ngi concentré wu si ñaar wala ñetti artistes parce que il faut dire la vérité il ne faut donc pas donc production yi en réalité amul xaalis dafa bëri coono. dafa bëri coono y' a pas d' argent et on investit beaucoup de choses. et pourtant vous avez marqué seen empreinte en termes de prod bi ngeen di ñëw. changer la communication andi des événements. c' était c' bien parti on se rappelle de guddi leer bu bu coalition ñamu baam. Euh, et bien d' autres ñoo xam ne jaar nañ fi. lan moo leen motivé. on a produit des personnes qu'on a des groupes qu'on a qu'on a aimé c' était pas pour pour se faire de l'argent et puis on se concentre Yukunkung se concentre sur ses projets. dans les prisons sur sur d'autres projets am na am par exemple am nañ Almasi war nañ ko génne am nañu Bionix war nañ ko génne am nañ peut-être euh, am nañ Ngaaka Blinde ak waa ak waa nu mu tuddati waa mooy groupe am waa Mbarikala on doit sortir leur album ñu ngi ci ay waxtaan donc ñu ngi ci liggéey boobu noonu on fait on fait avec les gens qu'on aime on fait avec les gens qu'on sent ce n'est pas pour chercher de l'argent bu ñu amee occasion ay classique ay devoir yu ngeen war a def seen diggante ak ay classique underground ay yeneen boy yi nga yi fi nekk ay stank music mm. club et cetera et cetera bu ñu amee feeling bi on soutient parce qu'il y a le studio il y a un peu de moyens qu'on peut mobiliser pour jox loxo suñuy rakk parce que hip hop aussi lool la mm. yemuñu aussi foofu en termes de conseil il arrive que groupe joge feneen ñëw laaj ñu conseil on fait am na li nga xamante ne formé lul ya y a des gens qui viennent nous voir ñu jàpp ci seeni conseils yu war a am conseiller leen ci nu muy amee en terme de communication wala jox leen xaalis pour ñu jàpp ci yenn affaires yi on est en train de le okay. faire. ok aujourd'hui vous partie des on peut dire euh, lieu wala centre boo xam ne ci hip hop mënoo def dara te doo ci boole ji hip hop aujourd'hui soo ñëwee tu da gis ni vous êtes bien baa ngi fii euh, euh, lépp a ngi fi pour pour faire vraiment une structure alors lan mooy résultat yi nga xam ne en retour mu ngi koy def à ci hip hop bi ci à dire ji hip hop aujourd'hui qu'est-ce qu'il a quest de plus ci ci hip hop seen est-ce que yaa ngi teg si sa loxo résultat yi yes déjà ñun on de on ju on vient juste de démarrer ça veut dire 2013 lañ ko inauguré diggante 2013 ba léegi affaire yu bëri am na fi ay concert am na fi ay formation am na fi am nañu benn soutien benn benn financement wu Union européenne euh, bu bu 20 millions pour deux ans war ci liggéey moo tax nga gis fii sept koñ bi yëpp set mhm. am nañu financement ministère de la formation professionnelle am nañu financement francophonie am nañu financement ambassade États-Unis pour dérouler ay projet projet yooyu ñuy dérouler c'est pour quand même que former ay booy. quand tu de financement ñeneen ñi niñ koy déggee mooy xaalis bu si la. wala xaalis la bu am promesse xaalis la bu leer xaalis la. xaalis il peur de parler d'argent xaalis la. bu dugg yéen a ngi jot xaalis. ñu ngi jot xaalis di si liggéey. xaalis bi ñu mujjee jot récemment ci ministère de la formation professionnelle ça a ça nous a permis de former des jeunes. c'est des million oui ay millions la waaw. pendant pendant ay trois mois ñii jàng beat making ñii jàng ñii jàng ñii jàng graffiti ñii jàng. ñuy jàng nu mu tuddati. Euh, des fois excuse-moi du terme on te par exemple que Malal il fu ne lay dugg pour lijjanti xaalis bi. dans les ministères organisations yi alors que xaalis boobu noonu est-ce que mi ngi dugg fi mu war a dugg. mais gisu leen lii. ça veut dire on a une. non lii xaalis la déjà. waaw déjà c'est FH qui a construit tout ça. dans le cadre de la responsabilité du xaalis bi nga sorti pour defar fii. EFA joxuñu ma sax proprement di xaalis dañu dañu ne dañ ñuy jox xaalis. ñu ne leen ñu ne leen tabax leen. ana xaalisu ministère. Euh, xaalisu ministère mu ngi ci compte ji IPOP Malal n'est pas le gérant. dañu am un comptable je ne suis pas le seul signataire. et pourtant à l'image tu da ngay yaakaar ni Malal rek la parce que. Ah. tu tout le temps au devant. alors que am ngeen structure am na ñeneen ñu fiy liggéey. il y a Pam Ndiaye Pat Ghetto c'est parce que dañ ma wóolu. a am nga xamante ne lu yëngu rek ñu ne ñoom la man dama bokk ci ñi nga xamante ne lu yëngu ñu ne ñoom la xam nga ñu ngi naan la ji hip hop ji hip hop malal malal malal je t'ai tout à l'heure dit que l'idée à l'origine vient de et je le dis tout le temps du ma c'est-à-dire je tiens à le dire Pape Ndiaye Pat Ghetto il fait partie des signataires ñi nga xamante ne pour xaalis mën a génn pour ji hip hop et cetera bu signewul munul génn et cetera et cetera donc te luy génn dañ koy waxtaane lu dugg dañ koy waxtaane luñ ci war a def dañ koy waxtaane donc mi ngi jaar yoon mu ngi jaar nu mu war a jaar donc foofu ñu ngi ci donc te résultat yi yiñ si am tey tey am na benn boy ci formation yi ji hip hop yóbbu nañ ko France tey dem ci ci ci ji hip hop il est parti en France pour euh, six mois dafa jàngi affaire u affaire u son la jàngi il s'appelle euh, nu mu tuddati sax fàtte naa turam on cherchait un jeune de dix-huit ans mu am chance. te fii la génnee quoi te fii le génnee fekk mu ngi tombé ñuy tànn kenn kuy def DJing il est parti faire de la radio en France pour six mois dañu am partenariat ak. benn association donc on peut dire waaw donc en janvier on reçoit ici Next Level ñuy jóge États-Unis waa université Caroline. Caroline euh, du Nord North Carolina ay américain lañ dañ fi war a ñëw pour former booy yi pendant un mois ci affaire u beat making affaire u DJ affaire u danse ak affaire u rap donc ay Tony Blackman ay DJ yeneen DJ dañ fiy ñëw pour def ay atelier dinañ tànn aussi ay xale yóbbu leen États-Unis ñun opportunité yooyu lañ bëgg a jox ndaw ñi donc am na ñi nga xamante ne nag ñu ngi yëngu ci wàllu lépp li nga xamante ne mooy récupérer ay espace récupérer espace yi pour defar ko Euh, mbalit bañ fa nekk am na ban yu nekk fee ay mbuus lañ ko defaree ay mm. kaasu café Touba et cetera et cetera mm. ñu ngi saxal ay garab yéen a ngi gis espace bi du mu mel ci liggéey boobu lañ nekk Malal des fois toutes ces activités là que du la fàtteloo l'aspect artistique bi nga xam ne ñenn ñi moom la ñuy xaat yow c'est-à-dire le vrai artiste musicien lu rappeur du Malal ses textes li muy dégager sur scène des fois comme l'impression ko da nga koy xaw a fàtte ndax sa yeneen activité est-ce que du la sonol tuuti des fois <laughs> ça me des fois ça te prend trop de temps mais tu te dis que c'est très important parce que tu c'est un don de soi da ngay jël li nga xamante ne lu ëpp solo si yow di ko jox ay ndaw di ko partager parce que quand je vois les jeunes s'exprimer ici on est très content gis ay boy ñu ngi fi jàng danse gis ay boy ñu ngi jàng. parce que lu bëri dañ gis ngay organiser et tout sur scène. loolu c'est très important yooyu c'est super important loolu parce que il faut une relève il faut que ñu am. relève bi nga xamante ne dafa xam lan mooy hip hop parce que tey bu ñu amee yenn problème yi hip hop c'est parce que la culture n'est pas très bien comprise et il faut que la culture soit effectivement compris comprise par les jeunes bu boy yi di comprendre lan mooy culture kenn du attan Sénégal ci hip hop kenn du ko attan Simon est en train de faire de très bonnes choses Fouken Kouk est en train d'ouvrir une boutique à Dalifort mm -hmm. etc aujourd'hui grâce à Yann Amar il y a eu le bureau des cultures ur urbaines le décret est là et on va exiger à l'État pour que bureau boobu exister ñu def ko une structure pour hip hopeurs yëpp foo fu waay mënti nekk ci Sénégal di yëngu ci hip hop am xam-xam nga mën ci liggéey donc. di ci gis sa bopp loolu la ñu nekk di ko dox loolu c'est très très. Malar tu as une lecture dans mouvement hip hop actuel nii nii nii présent c'est quoi ta vraie lecture ci hip hop bi honnêtement quoi. il faut li may xool par exemple j'ai suivi euh, je suis très en général moi je suis très de voir. que ay kër gi bu ñu defee concert day fees je suis très heureux de voir que le public est en train de revenir nit dof ay stade lay feesal moi je suis allé à Louga mhm. stade stade bu ngande yaatu mu mel ne match nawetaan la nit ñi ñëw seetaan si benn rappeur it was xam affaire bi dafa doy waar a mhm. sax xam nga gis grand théâtre c'était Simon le défi c'est important di gis ni aussi waa nu mu tuddati Fuk n Kook bu ñu organiser fii ay car rapide le nit. ay nit di fii dafay fees. open doors jégiraay ay open mais il y un problème il faut professionnaliser le spectacle être très sélectif gars yi bàyyi masla di woo ay mille groupes pour ñu jouer. il faut être très sélectif on ne peut en pas terme de spectacle en termes de spectacle parce que public bi bu ñëwee il a envie de voir un spectacle, du spectacle ça c'est vrai il a envie de voir du spectacle parce que c'est pour ça qu'il a parce si on organise alors y a pas de spectacle oui amul sens il faut que gars yi gën a ñeme bàyyi bon oui non bu ma invité wul diw dafay maire et cetera et cetera oui mais il faut que j'invite Malal parce que grand la mais s'il ne fait pas l'actualité structure yu bëri yi nag mais structure yu bëri am na solo mais ñu dem jàngi. Mhm. ñun chaque jour ñu délégué fii ay nit ñu dem agriculture urbaine jàngi ci seen formation. Mhm. parce que agriculture urbaine est en train de faire un excellent travail nit ñi ñu ngi leen di former ci ay management culturel il font ils cherchent des financements. pour nit ñi bénéficier wu ay formation ci métier des cultures urbaines mais ci ay mais ci ay management culturel ci ay ay ci ay tey ay ñun on va délourer à partir du premier au trente ci ay formation en photographie en vidéo en street fashion et cetera li ndaw ñi géejawaay doon daw di ko wuti Dakar centre culturel français Blaise Senghor am na fii donc c'est pour quand même délocaliser la culture pour dindi enclavement culturel yooyu te dañ ci soxla euh, que les autorités jàpp si parce que ba tey ñiy gën a jàpp ci liggéey bi ñuy def c'est des partenaires étrangers c'est l'ambassade des États-Unis c'est l'Union européenne état dafa am obligation wu soutenir genre projet yu demee. et ils sont obligés je rappelle que ñu ngi suivre Tek Ci Brique Malal la ñu recevoir tey euh, pour discuter un peu ci actualité ji hip hop ak moom personnellement euh, Malal dama lay invité ñu dem seetaan ak téléspectateurs yi euh, répétition wu bi ñu doon expliquer léegi live bi nga xam ne. Bataillon Blindé mu ngi koy def regardez tout de suite ñu ngi dellu si may samba ñàkk sa yaay jërma ni jaayoo may may dollar hee loolu mooy mala on a live bi euh, on peut dire que li nekk ci album bi la gisaat mais sax plus. donc du wàññi dara. Euh, on va plus parce que nit ñi bu ñu dégloo album en spectacle ils veulent voir autre chose et puis on apprend beaucoup de choses avec les musiciens. Mm-hmm. parce que quand même début bi di nga am difficulté passer du live instrumental au live au véritable live c'est c'est très important. Donc c'est du live quoi. Mais c'est beaucoup d'argent, c'est très coûteux. On sait, on difficile avec les musiciens. Alors Malal, euh, tout à l'heure dañ doon wax waxu ji hip hop à l'origine fu mu jógee ak euh, fii affaire bi tàmbalee nga rendre ci hommage un membre du groupe Bionix moom lañ toogal nii Dio euh, maa ngi lay ziar bu baax a baax abal ma sa micro rak tak rek ñu waxtaan ma ak moom. yow suñu waxee ji hip hop tey fi affaire bi yegg si ci niveau bi que tout le monde en parle gars yi bég ci kontaan xam ne lii bi muy tàmbali dara nekku fi woon. suñu yegsee fii tey lan lay def ci yow. dëggantaan waaw mbégte la rek bu rëy euh, lii mooy wane ne euh, li gars yi di wax dëgg la quoi rien n'est impossible mm-hmm. euh, ñun dañoo yàgg représenté hip hop fii Géejawaay xam la ñu dem ba toll à un certain moment gis ne hip hop bi soxla na innovation xam nga. léegi wartul nekk waaw maa ngi fàttali bu baax. gëm ne xam nga innovation war na mun a am si hip hop bi jot na pour ñu structurer suñu hip hop. xam nga mu wutee ak ni ñu ko doon doxalee ndax bu njëkk ba booy xool xam nga ay mal malentendu moo amoon entre les groupes. Mhm. ñuy gis na suy guerre di am dara du mën a sampu te hip hop bi moo soxla pour ñu initier pour ñu euh, innover ko. pour mhm. euh, pourquoi pas ñu teg ay centre yu mel ni comme ay culture urbaine. Mhm. teg ay centre yu mel ni ay Jolof for Life. Euh, géejawaay tamit il est temps comme ñun dafa am lu rëy lu ñu fiy représenté. ndax tey géejawaay mënoo tudd hip hop te tuddoo bâtiment blindé tuddoo Bionix. pourquoi pas ñun comme yàlla def na ne ñun am nañu benn pas bu ñu xaw a def si hip bi. te nouvelle génération bi mi ngi juddu biir géejawaay war na ñu mun a teg structure boo xamante ni ñoom bu ñu ñëwee dinañ am ay opportunité yu wute ak ñun yi nga xamante ni amoon amuñu ko woon quoi. voilà donc tey on peut dire mën nañu wax ni satisfaction am na. waaw bi à la base association la woon yi pare. waaw donc ñu dem ba mu jur centre bu toll nii. donc li ngeen ci li ngeen ci mbëbatoon weesu na weesu na weesu na. waaw satisfaction am na bu baax a baax. Euh, ndax man début bi bi ñuy doog a ñëw fii am idée wu teg association bi waxtaan ak malal suñu grand la. Euh, de passage moo béggee ko bu baax a baax sa parce que bu ñu amoon ñett yu mel ni moom gëm naa ne hip hop géejawaay dépassé na limite bi ñu toll bi ñuy doog a ñëw am idée wu teg euh, association bi euh, bi ñu ñëwee sollicité ko ci affaire bi dafa kontaan trop nañu booy loolu nekkul lu ñuy xaar loolu lu ñuy accéléré la quoi c'est parce que hip hop géejawaay loolu la soxla xam nga le lendemain ñu xëy mu a ma ma koy proposé na ko pourtant ñu ngi ci doon waxtaan ak maire bi nga xamante ni moom lañ dëkkal Madiba boobu moo nekkoon maire u Ndiarème Limamoulaye ñu jotoon nañu waxtaan ak moom ci association boobu noonu bëggoon tamit mu jox ñu benn bureau fële au niveau de Amokat foyer bu nekk Amokat mhm. biñ ko waxee malal malal mu nañu foofu day sori fii la ñu tàmbalee suñu hip hop fii si foyer Wakinaan waaw kon foofu lañ ko war a mun a yeggalee lépp lu ñuy samp fii lañ ko war a xam xamul la la lendemain si lañ ñëw gis directeur bi waxtaan ak moom ama proposé ko association bi mu apprécier si xam nga idé bi nañu nag xam nga tout est occupé ici quoi tamit ñu gis ne espace bu mag mu ngi fii te instant boobu noonu espace bi dafa nekkoon benn espace bu enclavé boo xamante ni mbalit la activité waa fi waa ay mbalit fi doon tuur ak ay ne ñu tamit ñu gis ne xam nga war nañu mun a allouer espace bi ñu jaayante tàmbale ak suñuy moyen bord xam nga ba keroog yàlla duñu may doolewu ñu mun a link ak ay euh, Euh, ay partenaires yu mel ne ay Eiffage leen pour ñu. gën ko gën ko yaatal alors may fàttali ni Bionix dinañ defaat benn numéro spécial parce que album am mi ngi ñëw gars ñu ngi koy xaar xamoon nañ Bionix ci ay spectacle ci ay mbir yu bëri ñun personnellement dinañ ñëw découvrir l' parce que gars yi ñu ngi studio ñu ngi waajal et ce sera une production de euh, Yukunkung n' est ce pas Malal donc ñu ngi koy xaar très bientôt ñu ngi lay bëggee bu baax a baax yaatal bi ak Bionix. nañ ko defaat man tamit maa ngi remercié bégee initiative bi. émission bi merci. merci beaucoup jaajëf ñu ngi koy bu baax a baax c'était un du Bionix euh, Malal fi may jeexale ak yow ah mënuma <laughs> jàkkaarloo ak yow forcément te du ma wax politique ak yow c'est impossible euh, lecture à part hip hop bi am nga beneen lecture ci politique bi c'est vrai que yaa ngi génn di ñëw mais yaa ngi suivre liy xew ci réew mi alors c'est quoi l'avis de de de Malal ci situation actuelle bi ñuy dund. yaa instant bii nii beaucoup de choses beaucoup de choses se passent mais il faut encore beaucoup de courage pour le hip-hop le hip-hop ñeme na attaque trop politiciens yi ça c'est un acquis loolu jaaxalatuñ ci gars yi mais il faut que ñu ñemee song société bi il faut que ñu ñemee song marabu yi parce que c'est aussi c'est un problème dans ce pays il est important que le hip-hop wax des fois da nga mel ni am nga benn bët ci marabu yi aussi parce que il y a aussi. TDF ça de ça. du ñoom ñëpp du ñoom ñëpp am nañ ay kilifa diina yu baax man am naa ci ay xarit mais am nañ ci ñoom ay problème bu baax a baax a baax ko il est important. Euh, hormis la politique ñu am bët ci ñeneen il est la politique ñu am bët ci ñeneen ñi parce que dëgg yàllaa ko moom war nañ ko wax et c' est très très important et que instant bi nii euh, des choses se passent ce qui se passe c' que. Euh, le procès de Karim ñu ne dëkk baa ngi dox aussi. Euh, dëkk baa ngi dox les populations ne le disent pas les populations waxuñu loolu parce que euh, parce que courant mu ngi continuer di couper ndaw ñi ñu ngi continuer di ñàkk liggéey affaire Bassirou Faye bi il y a encore des problèmes leeragul parce que jàpp nañ benn gain les étudiants se plaignent nee nañu il faut attraper le véritable meurtrier. mais accepter nga aussi qu'il y des efforts. bon y a des efforts qui se font man euh, la la li ñuy def contre la affaire bi ñuy xeex contre la trac la traque de biens là je suis parfaitement d'accord il faut que sénégalais yi cohérent parce que c'était une demande okay. des populations sénégalaises ok une, une, question très rapide également pour toi ana ana Macky Sall Macky Sall gën naa ko gis ah. maa ngi ko mujjee gis il y a peut-être bi ñuy xeex non au mur mais bëgg naa ko gisaat loolu que c'est ton ami Tu fais partie de ses conseils. Ça non, non, non, ça c'est pas vrai. C'est mon grand frère. C'est un ami de mes grands frères. Mhm. C'est le président du pays. xamante nañ bi muy nekk ci opposition xamante nañ bi muy nekk ministre ci Abdoulaye Wade. xamante ngeen ba léegi xamante nañ ba léegi léegi. Euh, am naa yéene wu. tu en contact avec lui non. waaw maa ngi ñu ngi jokkoo. donc ça c'est c'est vrai. yooyu xam nga yooyu yu ñu war a wax la jarul lépp parce que c'est le président des Sénégalais. en tout cas merci beaucoup Malal ça a vraiment plaisir ñu waxtaanee c'est vrai que lu bëri des na rendez-vous est pris allah le en décembre dinañ ñëw fii découvrir ensemble dundandoo le festival bi nga xam ne c'est pour la banlieue je dirais même pas pour Guédiawaye mais pour banlieue en tout cas ñun pare nañ pour accompagner bi nga xam ne gars yi ñu koy waajal et merci beaucoup ci ci ci ni ñu recevoir. jaajëf Kals merci. jaajëf Malal jaajëf am not illiterate, no, not even a little bit. Straight up, I make the music that's for you. Nothing, nothing, nothing, nothing like an idiot. Get it, get it, get it.